tax nag ñoom ñëpp instant yi def nañ benn say dënkale ko na li nga xam te ni loolu la leen président Macky Sall di def jot na nag mu jeex tàkk moo tax ñu daal def seen kuréel bu nga xam te ni ñu ngi ko duppee F24 ngir fexe ba président Macky Sall du nekk candidat ci élection yu dëgmal waaye lépp loo xam te nas na ko ngir nësaxal réew mi wala jàpp leen ci biir kaso yi daañu ko bañ nan nga gisee seen taxawaayu euh, mouvement boobu ñu duppee F24. xam nga bu ñu créer un pour jël le pouvoir. waaw c'est normal c'est le rôle parti politique. Euh, mission mooy fexe jël pouvoir. loolu pas jël pouvoir pas jël pouvoir. non waaye dégg oh, oh, écoute déglu hmm. tu m'as posé une question. waaw dama ni bu ñu tasee parce que li ñu defee finalité booy lan c'est de prendre le pouvoir. non la ah. oh, am na ñu bokk ci non et puis ay société a pas de société civile. waaye la a pas de je le dis y' a pas de société ci dama lay wax rek ñi nekkoon yeew yi ñoo nekk fële. Euh, mais nga gis ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom kilifa ñoom saa boo mu mënee wax ma ñoom soo boo mu mënee bàyyi ma wax ñoom Clédor et cetera nga ne ñooñu duñu ay duñu ay kii aussi monsieur le ministre duñu ay lan no nga ne bokkuñ société civile tey ji kilifa caat Aliou Sané ñooñu fan nga leen boole moo ñoo xoolal man je ne cite personne man je suis des principes je ne personne dama ni la bu ñu dajaloo former seen kuréel waaw bëgg jël pouvoir ils ont le droit suñu dajaloo pour ni Macky Sall du nekk candidat ils n'ont pas le droit parce que du ñoom ñoo war a déterminer du mooy li ma doon wax sànq ci jalbeen ay nit buñ bëggee ànd bëgg jàmm am kenn ku nekk day yem da nga yem ci sa rôle man débat bi juste à l'aise parce que yéen ñëpp fi la nee 2012 fekk. 23 pour deuxième position yi ma doon défendre en 2012 2011 2012 ci les mêmes positions laa nekk di ko défendre du ma Samba du ma Demba. moo war a wax ni yow am nga droit nekk candidat wala amoo droit nekk candidat c'est pas eux de le faire parce que kuy déposer dossier xam nga fa nga koy déposer bu élection jotee xam nañu kiy joxe résultat ni diw moo gagné donc je comprends que mu nekk li ñuy wax ni moyen de pression politique mu nekk moyen pour mobiliser ay nit je le comprends moyen pour def de l'agitation politique mais yow gis nga deux leaders et pas n'importe lesquels de l'opposition nga gis seeni vidéo kenn ku ci nekk wax ne oui Macky Sall avait le droit d'être candidat Barthélemy est allé jusqu'à dire que même en 2012 bi ñuy combattre Ablaye Wade ñoo la gënoon xam ne am na droit nekk candidat tu l'as lu donc ñooñu taxawoon ne am mën nañ jàpp ne dañu dañu juumoon rek wala xamuñu exactement le droit <laughs> parce que le président Macky moom toog na fi ne moom <coughs> du nekk candidat parce que moom ñaari ñaari mandat rek la am waaw Euh, bu ñu bëggee toujours di avancer dans une discussion ak lu mu mënti doon. Mhm. bu ñu def lii. loolu tamit bokk na ci li ñu indil problème Sénégal tey soo defee dara. Mhm. ñëpp dañu war a àndoon ne mañoon lii nga def waroo ko def. Mhm. ëllëg doo ko defaat mais boo defee dara <coughs> ñu ni mañoon ni def waru ko def waaye nag Serigne Mbacke defoon na ko fi da nga koy légitimer pour man loolu jaaduwul donc. du ñoom ñooy wax kuy daw du candidat ak ku dul doon te xam nañ sax mënuñu dañuy wax rek ils le savent très bien mais comme je t'ai dit moyen la pour def de l'agitation politique de mobiliser les gens et tout mais le dernier mot reviendra au peuple sénégalais. mais ñi ci signé bëri na charte boobu maanaam ñi ci signé bëri na. est-ce que gis nga liste bi. gis naa ko. maa mën a waat ni gisoo ko. ah ci weeru koor lañ nag gis naa nga ne gisuma ko. billah génneel ma ko. baax na génne ko gisuma ko. la liste n'est foo ko gisee foo ko gisee yow nga seetaan en direct. ma ne Ousmane Sonko signé signé charte bi waxuma waxuma Ousmane Sonko ma signé. nga gis ko tu m'as parlé d'une génneel ma liste bi. 112 yi ngay wax génne ko xam nga lu tax ma lay may instant naa génne ko. Mhm. boo ko génnoon ña nekk yeewee nga cay fekk. te la liste n'existe pas. c'est vrai am na ay nit yu ñëw signé. c'est vrai ay Mimi après après quest que ça fait. 1 plus 1 égale 2 10 plus 10 égale 20 c'est aussi simple que ça. ça c'est pas un problème ils sont ils sont dans leur rôle man loolu vraiment ça me dérange pas au contraire ils sont dans leur rôle nit ki bu fekkee ne da nekk dans l'opposition loo mën a def pour affaiblir ton adversaire da nga koy def man tant que c'est dans la démocratie la paix aw mooy ci problème c'est une bonne chose parce que une démocratie dañ ko war lii dundal démocratie booy lu mel nii créer ay mouvement def ay manifestation def ay meeting def ay déclaration j'ai j'ai un ami <coughs> qui était ministre au Congo Brazza benn jour dans une discussion comme nii ñu naan woy sénégalais yi dañu bari wax nangam mu ne ma mon cher il faut les laisser parler chez nous c'est les kalachnikovs qui parlent c'est bien que les gens parlent c'est bien que les gens attaquent le régime c'est normal loolu mooy démocratie loolu mooy dundal démocratie loolu mooy avancer loo réew moi je n'ai rien contre ça na nekk rek ci les limites yi nga xam ni parce que nit ku ne da ngay respecter sa nawle ki nga xam ne boo doxoon ci mbedd ba taseeg moom dama e eh, manjoon danga nga def nga eh, e tonton na nga def nuyoonte waxtaan saafonte dem soo amee ngénte ma ñëw su ma amee sama ñaar fukk ndawtal su ma amul it ñëw ñaanal liir bi yàlla tere su ma amee dëj wala nga am ko da ñëw institut yëpp ñu tase fa donc ñooñu politique warul tax ñuy waxante wala ñuy defante lu ñaaw. mais ci combat bi ñu nekk nii dafa légitime combat bi ñu nekk nii mooy le président Macky Sall bañ a nekk candidat dafa légitime. monsieur le ministre mais mais mani. président Macky Sall amul droit <laughs> nekk a xëcc sa candidat. yoo xam ne bu ci sukkandikoo le président Macky Sall war dama bañ. est que jàmm. gis nga li may bañal sama li may bañal sama bopp moom laa lay bañal. xam mooy lan ñi xam di la xeeb non non non non si la parce le président Macky moom nee na moom du candidat ah. du candidat du ma candidat bokkul ak aw ma droit nekk candidat bref constitution nee na ko amoo droit nekk candidat ah nul ne peut exercer deux plus deux mandats consécutifs non man xam nga débat yi du ma ci dugg xam lu tax non mais loolu moo am non bu la neexee Idrissa Seck barki démb Ndiaye nee <coughs> nekk candidat ah Idrissa yàlla lu la yónnee te waxam sa bible la. non mais du bible mais ay gëstukat euh, boo déggee ne ay gëstukat ci wàllum yoon ñoo xam te nii bu ñu waxee ci yoon kenn du ko teggi ñoom ñoo ne Macky Sall amul droit nekk candidat alors bi ñuy voté cette constitution là avant ñu koy voté. Mhm. le professeur Babacar Gueye a fait une sortie pour dire que constitution bi nii ñu koy voté bu dee nii nii lañ koy voté Macky Sall aura droit à un troisième mandat. Babacar Gueye dooma ni xamul dara ci constitution mm-hmm. le professeur Zouanke a dit la même chose du ma sori ci ay c'est pour te dire que mm-hmm. même ci biir juriste yi même ci constitutionnaliste yi mm-hmm. déggoowuñ ci ñii nee nañ lii la ñii ni lëli la segam bi ñoom ñi constitutionnaliste ñoo ci déggoowul waxuma la ñi ko doonul xam nga tous les jours damay dégg ay nit même ñu farak ñu na ah. ñuy wax naan way deuxième quinquennat troisième lii troisième lële te da nga ciy dégg ñoo nga xam ni même baatu constitution mënuñu koo prononcer ñooñu ñoo lay interpréter constitution bi te ku nekk xam na ni le le droit par essence c'est le terrain de l'interprétation mais kaddu président ginnaaw ginnaaw loolu am na attends ginnaaw loolu am na non kaddu président du droit droit la ñu droit ngay wax ni yow parce que tu parles de constitution d'accord dès lors que ñii mën nañ ko gisee ni ñii gisee nii ñii gisee nii mais am na ku ñu fi teg moo war a àtte kooku rek moom la kàddoom valable keneen ku ci waxit da ngay wax ba géex rek bi amul njëriñ